commission bi defar carte d'identité yu yees yi pour inscription liste électorale 2019 ñëw nañu fii Cheikh Santine dox nañu liggéey bi nag tey jii ci dimanche ji juróom-ñetti fan ci weeru avril mbooloo mu bari nag ñoo ko teewee ngir bëgg bokk ci lu nu mel la mu bari yëkkati ay kàddu ti ne daal fan yi nga xam ni moom la ñu jagleel Amérique latine ngir def inscription bi dafa gàtt lool ba ñu ñaw njoxtu ci nit ñu bari du nu mën a bindu ci lu ni mel afa jeeju di représentant Sénat fii doon it président sénat sénégalais en Argentine cheikh na waxtaan bi yaatu ak Badou Ndiaye. tey ñu ñëw ci euh, présidence commission électorale pour les inscriptions sur les listes électorales ñu dalal ci suñu le représentant de la sena fii ci Amérique latine ñu koy wax Arfan Diédhiou président de l' association des sénégalais résidents en Argentine monsieur Diédhiou ñu ngi lay siyaar di la laaj euh, déroulement bi ak procédure bi nan nga ko jàngat. TV maa waa di gërëm ñëpp di gërëm aussi seen présence euh, ci révision bi euh, pour le moment wax dëgg yàlla ça se passe bien bon amul benn problème euh, nit ñi ñëw nañu donc ñu ngi ci inscription yi wax dëgg yàlla pour le moment amul benn problème quoi. waaw monsieur Diedhiou mais nga gis ak ak foule bi am nii tu penses que ni ci nombre de jours yi yi ñu yi ñu décrété pour Amérique latine war nañ ko war na mën a combler pour mën a inscrire sénégalais yi nekk ci Amérique latine. puisqu'on sait que on tourne autour de 4000 Sénégalais au plus est-ce que yaakaar nga ni ak nombre de jours bi ñu décrété war na mën a inscrire électeurs yi nekk fii ci Amérique latine. bon pour le moment li ma ci mën a wax mooy on a jusqu'au 23 parce que 23 le 23 mooy clôture euh, révision yi exceptionnelle donc après le 23 aussi am nañu yaakaar ne xëy na mën nañ ko prolonger parce que dafa am benn retard boo xam ne euh, commission bi euh, daf ko tardé pour ñëw Amérique latine en que dañoo yéex a Euh, waroon nañ démarrer bu yàgg mais ay problème tax bon je sais pas ay problème administratif yoo xam ne ñun à notre niveau ici en Amérique du Sud c'est indépendant de notre volonté donc euh, ci ci kaw la jógee euh, xamuñu lan moo tax ñu ñu yéex ñoo envoyé les les commissions mais en fait ñu ngi xeex pour ñu jéem a prolonger date 23 bi parce que xëy na dina xaw a jafe un tout petit peu pour ñëpp mën a ñi bëgg a inscrire yëpp mën a inscrire. mais ñu sous-entendre que ne après Buenos Aires da ngeen di dem wala ngeen dem ci yeneen province yi nga xam ne am na une forte concentration des sénégalais mais loolu information bi ñoom yëg nañ ko ils se sont préparés davantage wala. waaw ci côté boobu aussi province yi nga xam ne dañ fay dem jokkoo nañ ak euh, ñi nga xam ne par exemple ñoo fa représenté association bi euh, yaakaar naa ñu ngi réglé nañ détails ñu war a réglé yëpp ñoom à notre niveau à leur niveau ñu ngi préparé par exemple pour fa commission bi Euh, su ko defee ñu mën a def liggéey bi comme ni mu waree après ñu dellu si waat capital incha allah. waaw monsieur Diedhiou ñu ngi lay ñu ngi lay remercier di la wax sa dernier mot ak euh, organisation beeg déroulement bi noo ko gisee. waaw pour le moment comme ni ma ko waxee sànq rek tout se passe bien bon toujours organisé moom yombul quoi mais wax dëgg yàlla euh, tout se passe bien ñu ngi def liggéey bi comme ni mu waree ñu ngi ñaan aussi la compréhension des sénégalais ñu xam ne aussi liggéey bi ñu def nii du liggéey bu yomb ñi nga xam ne ñoo jógee Sénégal ñëw fii par exemple di di def inscription yi. Euh, ay professionnels lañu xam nañ li ñuy def donc ñu jàppale leen ñu dimbal leen aussi su ko defee ñu yombalal leen liggéey bi quoi bu ñu ci boolee un peu de discipline rek euh, incha allah affaire bi dina gën gaaw su ko defee ñëpp ñu bëgg a inscrire dañu agri dinañu inscrire incha allah. merci cant ak ngërëm ñeen la waaw ñuy lancer un message à l'endroit de tous les sénégalais moom benn compréhension boo xam ne la commission bi nga xam ne ñoo nekk fii pour defar euh, papier yi dañ fi ñëw uniquement moom plus de compréhension am plus de plus de ñu mën a inscrire la. la plupart des sénégalais wala tous les sénégalais ñu ñu inscrire ko ci jàmm après dëgmal élection yi ci jàmm. mbokki Sénégal yi fa teewoon nag bi ñu leen dëppee suñu micro. di xool actuellement ñoo ngi teg suñu bët nag di xool mais li fi ñëwagul suba ba léegi Sénégalais lépp jaar na yoon ñoo ngi bind normal actuellement. amagul benn problème waaye daal ñoo ngi teg sunu bët di xool vraiment ndax dañoo bëgg lépp jaar yoon Sénégal yëpp am seen carte d'identité CEDEAO loolu am solo la te suñu droit civique la bu élection ñëwee nag ñu xool ku nekk ki nga bëgg a woteel nga woteel ko